أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ci suratul baqara comme ni ñu koy defee ci samedi bu nekk ñuy jël ñetti aaya insha allah aaya 168 aaya 169 ak aaya 170 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróom benn mbir juróom benn mbir yooyu bi ci njëkk mooy wujubu talabul xalaali dagan gi nga xam ne dina ko dagan war gi nga xam ne dina ko war ci ab jullit muy sàkku lu dagan lu dagan lañu waral ci moom moom ab jullit ci lépp lu mu war a def lu mu war a wax lu mu war a lekk lu mu war a naan lu mu war a lu mu war a lépp na fexe mu nekk lu dagan waaye wal iqtisaaru ala al iishi minhu na doylu tamit ci dund ci lu dagan loolu walaw kaana dayiqan qalilan doonte ne dafa tuuti fexeel nga yem ci li la yàlla daganal képp kott nga yem ci loolu mooy tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci aaya yi ñaareel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy alxalaalu maa ahallahu llah walxaraamu maa xaramahu llahu taala li dagan mooy li yàlla daganal li yàlla ne moo dagan loolooy li dagan ci jullit su la yàlla daganalee dara ku la ko araamanal tooñ na la beneen bi mooy mbirum araam ak dagan ci yàlla lay bàyyeekoo su yàlla ne mbir mi araam na araam na su yàlla ne dagan na dagan na kon li dagan mooy li yàlla daganal wal xaraamu ma xaramahullah li araam mooy li yàlla araamal fala yastaqillu l aqlu bi cheyin min zalika warul cib jullit yàlla ne araam na mu naan mais yàlla araam yàlla araam na ko mais daal vraiment man sama xel nanguwu ko wala yàlla daganal na ko mais sama xel nanguwu ko sa xel wala sunu xel amul dayo amul wàccuwaay ci li yàlla di santaane bu sa xel nangoo bu sa xel nanguwul boo ko nangoo boo ko nanguwul su ko nit ñi nangoo buñ ko bañee ku ko mën a nangu ku ko mën a bañ li dagan mooy li yàlla daganal li araam mooy li yàlla araamal ak ku ko mën a ku la ko mën a tere mais gis ngeen ne tomb yi ñu toll mooy jullit ñi di fexe di yem ci li yàlla daganal ak di bàyyi li yàlla araamal daanaka jullit ñi léegi tële nañ ko dinaa leen jox ay misaal yu ndaw rek yoo xam ne nit ñi dañuy xëtt sharia parce que soo waxee ñu ne ñun dunduñu sharia misaal ci mbirum takk soxna ñaata jabar la lislaam wax na jullit am ñeent tey ci réew mi ñuy dund ndax yéen yëgu leen wala déggu leen wala gisu leen ko ëppal tontu bi mooy ah kay ñooñu def loolu soo leen ne woon tey yéen lu tax islaam ne ñeent yàlla ne ñeent yonent bi ne ñeent sharia ne ñeent yéen ngeen ëppal lan mooy seen tontu. nga dégg ñu wax la loo xamante ne ma anzal allahu biha min sultaan ci ay mbir yu bare bare bare bari yu ay doomu adama di def tey xurmatu araam na ittibaau masaliku shayatin ci ñetteel li ñuy jële ci aaya yi mooy araam na ci jullit ñi ci jullit bi mu topp yoonu seytaane araam na ci jullit yi ñu topp yoonu seytaane yi te yoonu seytaane bu ñu ko waxee bul gis ne mukk seytaane day ñëw ba ci sa buntu kër rek ubbi daal lay ubbil benn yoon fàkk yoon ne la jaaral ni déedéet loolu loolu déggin bu bul topp yoonu seytaane mooy buy topp alxalaatu seytaane bul topp xalaatu nit yi nga xam ne jubawul ak mbi- diine yàlla bul topp ay gis-gisu nit yoo xamante ne dafa wuuteeg li yàlla indeeg yonentam saa yoo toppee ay idéologie ci ku mu mën a doon bu dul bi yonent yàlla muhammad indi topp nga yoonu seytaane misaal rek gis ngeen sunu réew am na capitalisme am na socialisme am na libéralisme am na am na am na am na am na am na yooyu idée yépp idée seytaane la mooy yàlla mu ne bu leen topp yoonu seytaane bu kenn jàpp ne buñ nee yoon bu dee xale yu ndaw yi dañuy jàpp ne yoon mooy mbedd mi may jaar waaye yàlla bu la nee bul topp yoonu seytaane lim ci nam mooy ay xalaatin ay gis-gis yu wuuteeg li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi waaye kullu mu'taqadin mooy bépp pas-pas bu wuuteeg bi yàlla wax nañ ko fas yonent bi indi ko jàngale ko ku fas fas fas bu mel noonu fas nga fas fas seytaane aw qawlin wala wax aw amalin wala jëf naha allahu taala anhu boo xam ne yàlla da koo tere képp ngeen gis ci jullit ñi mu am pas-pas bu wuuteeg bi yonent bi indi kooku dafa jaar yoonu seytaane wala muy wax ay wax yoo xamante ne dafa wuuteeg li yonent yàlla muhammad indi kooku dafa jaar ci yoonu seytaane wala muy jëf ay jëf yoo xam ne dafa wuuteeg li yàlla ak yonent bi indi kooku dafa jaar ci yoonu seytaane rawatina nag muy jëf-jëf joo xam ne islaam daf ko tere xalal misaal di nga gis benn waaye boo xamante ne dafa nekk communiste nekk jullit boo koy xam ne man communiste la mais jullit laa mënul nekk parce que communisme lan mooy pas-pasam mooy instaurer vie sans Dieu dund aw dundin boo xam ne yàlla bokk ci boo xam ne nga ni man gëm naa yàlla ñaata parti communisme moo nekk Sénégal. ah. mooy poson waaw. loolu kay lu ñu fekk ci téere yi la lu ñu bind lu tasaaroo léegi nag naka la jullit di gëmee loolu ba bari nekk jullit te li doy waar. mooy gis nga xalaat yi ñuy wax muy pexe seytaan moom la ñuy jàngal xam moom la élèves yi di jàng moom la ñuy jàngal jullit ñi université di leen jàngal ay yoonu seytaan moo tax day néew ndaw lu dëkk Sénégal jublu yàlla ak yonent day néew de yéen ñii toog fii nekk ay ndaw di jàng université wala ngeen génne fa da ngeen a rëcc de da ngeen a rëcc da ngeen a rëcc ci kàmbu gi waaye pexe bi leen noon yi fexe loon mooy yéen ñëpp bu ngeen dee dem safara mbokk yi ñeenteel mooy wujubu al ibaadu an kulli suuin wa fuxsin li annahuma mimma yaamuru bihima shaytaan dina bokk ci li ñuy jàng ci aaye yi mooy war gi nga xam ne dina ko war sori lépp lu ñaaw walla lu bon ndax lu ñaaw ak lu bon dafa bokk ci li seytaane di di digle gis ngeen bu ñu jàngee diine da ngay gis yàlla subhanahu wa taala mu ne ñi weddi yàlla lu tax ñu weddi mu ne seytaanu a seytaanu sawwala lahum amalahum seytaane moo leen moo leen méngale yoon woo xam ne moom la ñuy jaar wala seytaane moo leen rafetal li yàlla araamal zayyana lahum seytaanu amalahum seytaane moo leen ko taaralal benn misaal rek laa doon jox léegi ñii balaa ñuy ñëw ci jàkk ji mooy xoolal ci sedd lañ nekk góor ñëpp koo gis dafa tegale nga gis am na al mal'uuni naat ñu yàlla sorir yërmande ci jigéen ñi ñoo xam ne solu ñu yëre xoolal sedd bi ni mu mettee ndax bëgg lu rafet daf yaramu neen ci seen jamono sedd bi yaramu neen boobu ñu def lan moo leen ko taaralal seytaan xoolal seen bopp yi liñ ciy def lan moo leen ko taaralal seytaan kon seytaan dafa bokk ci taaralal nit ay jëf wala ay melokaan ba nga bàyyi li yàlla bëgg moo tax mu ne dafa li war ci jullit mooy mu sori wujub al ibaadu mooy wujub dafa war al ibaadu sori la la ñuy sori an kulli suuin ci lépp lu bon wa foxsin ak lu ñaaw ndax ñaar yooyu dafa bokk ci li seytaane di di digle di digle juróomeel mooy xurmatu araam na ñi jële ci ay taqlidu man laa ilma lahu wala basira fi diin mbokk yi tomb bii nii dañ ko fekk ci ay mooy dana araam ñuy toppandoo wala ñuy roy ku amul benn xam-xam ku amul benn gis-gis ci diine ñu lay roy Sénégal bokk na ci li ko alak mooy nit ñi dañuy roy ay njiit ci diine ñoo xam ne amuñu xam-xam xamuñu dara ci diine ba pare ñu tuddee leen ay kilifa diine te ñooñu dañuy dundee diine ji mais dundaluñu diine bi loolu la nit ñi fàtte ñu tuddee leen ay nitu diine te xamuñu dara dara te billaahi wallahi wa tallahi buñ leen sampaloon ay micro peuple bi wër leen di leen laaj di nga ci gis koo xam ne du tontu ñaari masala kon ku amul diine ku xamul dara ci lislaam kenn waru laa kenn waru laa roy parce que yow da ngay réere laate fasaadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhuma jahilun mutamassik ñaari nit dañuy yàq société mooy boroom xam-xam bu kàccoore ak ku xamul dara kuy jaamu yàlla dañuy yàq société rawatina nag ku xamul dara ba pare ñu askale la diine nag tegle ci kanam nit ñi di la xool lu araam loo def soo nee nit ñi ar baaxul ñu ne la diw daf koy def jabaram daf koy def mus naa wax benn waay bu ma dajal ci bi yoon ma ne ko takkalam dafa xaram mu ne ma sëñ jiw daf koy def ngandum lam la takk te moo la raw moo la ëpp xam-xam point ma ne ko law kaana la ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillahi iblis bu doon ko am xam-xam ragal yàlla kon iblis ragal yàlla waa ji mer bu doon ko am xam-xam ragal yàlla kon iblis ragal yàlla ku mu mën a doon iblis la raw mais iblis ragalul yàlla moo tax mu bon kon mbokk yi ku amul xam-xam ci diine kenn waru laa roy ñaareel bi mooy ku ci amul basiira amoo ci gis-gis waruñu laa roy ku la roy alku juróom-benneel mooy jawaazu dagan na ittibaau ahlul ilmi topp boroom xam-xam dagan na ndax boroom xam-xam wal axzu bi aqwalihim ak di jël seen wax boo fekkee boroom xam-xamu diine bu ragal yàlla bu baax ngay jël waxam di ko déglu dafay tax yow nga xam fi ngay teg si tànk day tax yow nga mën a jaamu yàlla day tax yow lépp loo def doo ko fortaatu ci mbedd yi tey bëri na jullit booy dajeel muy def dara nga ni ko lii ngay def lu tax nga koy def mu ne la damaa gis nit ñi di ko def rek ma koy def mais bu fekkee waa ji moom day dem ci place diine yi di jël ci borom xam-xam yi wéral li ñuy joxe waa jooju lu wér rek lay génnee lu wér rek donte ne yërul téere yëpp waaye dafay dem di jëli ca ña wérle moo tax moom la mu yor wér kon dagan na ñu topp borom xam-xam waaye ñu jël ay waxam wa aaraihim ak seeni gis-gis yoo xam ne nag dañ ko gis jële ko ci waxyu mooy ci alquranul karim te yooyu tegu ci alquran ak sunna kon bépp boroom xam-xam boo xam ne mi ngi ci sawet di jàngale di wax di waaraate di jubanti ci alquran ak sunna yow moomu dëkk ak moom yow moomu dend ak moom soo ko gisee jàppal ci kooku balaa ngay alku kon ixwatal iman juróom benn mbir yi insha allah ci kàttanu yàlla moom la ñuy jëlee ci ñetti aaya yi ñu war a jël tey mu nekk sunu dars أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون سن برم سبحانه وتعالى من يا أيها الناس yéen nit ñi yaa ayyuhannaas yéen fàttekat yi fal insaan mahalu nisyaan inna awwala nnaas awwalu nnaas wa laqad ahinna ila aadama min qablu fa nasiya lu tax yàlla tudde ñu annaas mooy dañoo fàtte lan la ñu fàtte mooy sunu mission ci kaw suuf li ñu waxoon ak yàlla ca aalamul arwaax ca azal mooy bu ñu wàccee dañuy jaamu yàlla ñu wàcc kaw su fàtte moo tax yàlla bu ñuy wàcc quraan mu nañu yaa ayyuhan naas e yéen fàttekat yi ñu fàtte woon li leen taxoon a jóg léeg-léeg nga gis ku ay mbokkam dajale ndeyam ak baayam léeg-léeg sax ñu jaay kër gi léeg-léeg yaa ji jaay takkaayam léeg-léeg paa bi jaay oto bi léeg-léeg léeg-léeg ñu ne da ngaa war a tukki ndax yow yaay sunu taaw nga dem boo demee nga liggéeyi nga jàppale ñu nga xam ne yow ñu yab laa yaba yaba yaba yab nga ni waaw waaw waaw ñu daggal la bee nga ni cëpp fàttali taxoon nga jóg topp boîte de nuit yi topp sàngara si topp yàmbaa ji topp caga yi topp jigéen ñu bon ñi ba ñu jàpp la topp drogue ba ñu jàpp la yenn saa yi tëj la fa wala yenn saa yi ñu jàpp la yeew la delloo si waat te yow ba ngay dem am na loolu la famille bi waxoon mooy dangaa fàttali taxoon nga dem ñu nit dañoo ñëw ci kaw suuf rek suuf neex ñu fàtte lan lañ waxoon ak sunu borom moo tax yàlla sunuy waa mu nañu yaa ayyuhannaas e yéen fàttekat yi ñun ñëpp fàtte nañ li taxoon ñu jóg waaw ñoo fàtte fàtte ñoo fàtte yàlla nee na seen baay aadama laa njëkk a waxal mu fàtte lan la yàlla waxoon ak aadam lekkal lépp biir aljanna waaye wala taqraba haji sajara bul jege garab gi fatakuna min azalimin bis boo ko jegee di nga bokk ci tooñkat yi seytaane ñëw tarxis loo ko aadama daal di lekk ci garab gi yàlla daal di koy dàq biir aljanna yaa ayyuhan naas yéen nit ñi kulu lekk leen mimma fil ard lépp lu nekk ci suuf xalaalan lu dagan tayyiban lu teey gis ngeen ndekee sunu borom subhanahu wa taala moo ñu defaral moo ñu sàkkal lépp lu nekk ci kaw suuf ñu war koo dundee waaye dafa tënk wax ji su waxoon lekk leen rek kon lépp dañuy lekk mbaam xuux mbaam sëf xaaj bukki da dañuy lekk rek di raatala di dem waaye yàlla dafa tënk wax ji lan la wax xalaalan lu dagan baat bi baat bu jar a taxaw la lekk lu dagan naan lu dagan sol lu dagan liggéey lu dagan dem fu dagan tëdd ci lu dagan wax lu dagan lépp lu mu doon na dagan lu dagan mooy lan lu dagan xalaalan lu dagan ma an xallat uqdatul xasri anhu wa huwa ma azina allahu taala fii lépp loo xam ne yàlla daf ko fecci aslul asiyaa yi lan mooy cosaanu mbir yi dagan al ibaha huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian yàlla bu fasee mbir yi feccil ñu ko dagan na mais bu ko fasee kenn amul droit fecc ko muy lépp loo xam ne yàlla dindi na fas fas bi mun nañu lekk leen dañuy lekk wala mun nañu def leen dañuy def bu ne taxaw leen ñu taxaw sunu borom subhanahu wa taala ba mu wonee ci aay ne moom mooy yàlla ay passé samedi ne moom yàlla moom dong moom moo ja yegoo moom dong moo yeyoo sharia mooy yoonal mooy daganal mooy araamal moom sunu borom moom mooy kii wërsëgal ñépp wa annahu raziq li jamii xalqihi mooy wërsëgal ñépp noonu la leen daganalee an yaakulu mimma xaala kawnihi xalaalan min allahi tayiban noonu la ñu daganalee ñu lekk lu dagante teey ñëw na ci ibnu abbas moom ibnu abbas nee na qaala talaytu hadihi al ayat inda annabiyi sallallahu alayhi wa sallam jàng naa aaya bi mu yaa ayuha nnas kulu mimma fi l ardi xalaalan tayiba aaya bi jàng naa ko ci kanamu yonent bi ba ma ko jàngee fa qaama daa di jóg taxaw benn sahaaba bu tudd saad ibnu abi waqaas ba ma daanelee aaya bi rek saad ibnu abi waqaas jóg taxaw fa qaala ya rasul allah udu llaha an yajcalani mustajaba daawa ibnu abbas nee na dama daaneel aaya bi rek sahaaba bu tudd saad ibnu abi waqaas jóg taxaw daan ne yonent ñaanal ma yàlla su ma ñaanee yàlla nangu ñaanal ma yàlla su ma ñaanee yàlla yàlla nangu li ma ñaan fa qaala ya saad yonent bi ne ko yow saad a turidu an takuna mustajaaba daawa da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla may la mu ne waaw mu ne ko atib mata amaka li ngay lekk na dagan takun mustajaabu daawa soo ñaanee yàlla may la li ngay lekk na dagan soo ñaanee yàlla may la allahu akbar li ngay lekk na dagan su fekkee yow nag li ngay lekk dafa araam nag ça veut dire que kenn du la nangul saad mujj na su ñaanee yàlla yàlla may ko ba ci mujjantalu dundam mu silmaxa gisul mu gumba doom yi ne ko bàyyi mu ne ah ñu ne ko yow boo ñaanee yàlla may la mu ne waaw ñu ne ko sax doo ñaan yàlla mu wéral sa bët yi nga gis mu ne déedéet dama dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku yàlla jël ay bëtam ci àdduna mu muñ ba mu faatu ci lislaam bu deewee moog yonent bay bokk kër dama bëgg a dëkk ak yonent bi bàyyi leen ma nii bàyyi leen ma nii dama bëgg a dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci lekk lu dagan xalaalan tayiban yonent bi mu waxee loolu ba pare mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi maa ngi giñ ci ki nga xam ne bakkanu muhammad mi ngi ci loxoom inna arrajula la yaqsifu luqmata alxaraami fi jawfihi maa yataqabalu minhu arbaina yowman yonent bi giñ allahu akbar kan moo giñ yonent bi lan la wax mu ne giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan bi man muhammad ci loxoom la nekk kookoy kan mu ne nit du lekk benn dank bu xaraam benn tibb bu xaraam lu dul 40 jours bu taxawee di julli yàlla du nangu julli gi 40 jours benn tibb benn dank ceeb boo jëlee ci lu araam nga lekk ko 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu kon boo jëndee saaku ceeb ci lu araam nag boo gañee pays mi nga dem jënd saaku ceeb bu fekkee benn dank 40 jours la tuqbal lahu salaata arbaina yowman léegi kon yow boo ci jëndee saakub ceeb benn 100 kilo ceeb wala nga jënd ci benn magasinu ceeb burigu diwlin tonu suukar ci lu araam loolu te yaa ngi julli kon ça veut dire que kañ la yàlla di nangu sa julli kañ kañ bu dee ci nga dëkk nag comme yi des sénégalais ngeen xam ñuy jëlee seen dépasse ci PMI bi ñuy jëlee seen dépasse ci l'autorité nationale ñuy jëlee seen dépasse ci lekk lu xaraam taxaw ci tali bi di nangu alalu jullit yi ñenn ñi di agressé ñenn ñi dañuy jël fal force ci yow loo xam ne mënoo ci dërëm ñaata sénégalais ngeen xam yu nekk ci mairie yi luy lekk lu xaraam ñaata sénégalais ngeen xam yu nekk ci tribunaux yi di lekk lu xaraam ñaata sénégalais ngeen xam yu nekk ay avocat di lekk lu xaraam yu nekk ay jullit ñaata ñaata te ku lekk lu araam benn yonent bi dafa waat ni giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan bi mu ngi ci loxoom kenn du tibb benn dank ci lu araam dugal ko ci sa gémmiñ lu dul yow 40 jours yàlla du la nangul fa qaala moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne rawatina nag mu ne wa ayuma abdin nabata laxmuhu min alsuxti wa riba fannaaru awlaa bihi dañu ne bépp nit moo xam ne alal ji muy dundee mu ngi ko jëlee ci ger ak riba yonent bi nee na safara moo yeey ci arab jooju alal jooju kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa araam yonent bi nee na safara moo ci yeey safara nga jël million taal beneen almet teg ko ci këyit di tàkk ba jeex moo gën nga lekk bis boo ko lekkee noonu safara si di def xaalis bi di ko lakk bi yéey moom jeex noonu la yàlla di def yowmal qiyaam sa yaram bi ak mu lakkal fa qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam ayuha nnaas yonent bi nee na ee yéen nit ñi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey yàlla dafa sell du nangu lu dul lu sell inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara almuminina bima amara bihi almursalin faqala ya ayuha arrusulu kulu min altayyibati wacmaluu salihan inni bima tacmaluuna alim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen nit ñi yàlla dafa teey du nangu lu dul teey moom yàlla li mu digal yonent yi li mu digal ñi gëm yàlla loolu la digal yonent yi ñun ñi li ñu yàlla sant loolu la yàlla sant yonent yi lan la yàlla wax yonent yi nee na yéen yonent yi yaa ayyuha rusulu kulu min at-tayyibaat yéen yonent yi ñu ne amu ne lekk leen lu dagan de moo da ngeen jàng inna nabiyallahi daawuda kaana yaakulu ala amali yaday daawud yonent la mënoon na tëdd gaay di ko ziyaare rek e daawud m est-ce que ñu ne loolu dañuy jàppal ci lii alaysa kazalik daawuda yonent la da doon liggéey ban yonent ngeen gis bu amul métier ban yonent ngeen gis bu tëddoon ñu koy ziyaare di ko indil muy lekk di naan wax leen ma turam yonent yëpp doon liggéey ngir bañ a lekk lu xaraam ndax yaa ayyuha rusul kulu min at-tayyibaat lekk leen lu dagan yonent yàlla muhammad da doon sàmm commerçant la woon yonent yàlla ibrahim maçon la woon yonent yàlla nuux yettkat la woon da ngeen ma yettoon gaal ka ah yonent bu nekk am nga loo doon liggéey am nga mécc ñun nag ñun nag da ngay dégg Sénégal ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dégg naa xaayida boobu xaalis kenn du ko liggéey da ngay koy lijjanti xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti waaw laa xawla wala quwwata te loolu nekkul ñu ndaw ñoo ko wax Sénégal de ay ponkal ñu nit ñi war a topp ñoo ñoo wax loolu léegi imagineel kooku ñu topp ci ginnaawam yëpp la la ñuy def dañuy liggéey dañuy lijjanti rek kenn du ci liggéey ixwatal iman ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi ba mu waxee li ba pare summa zakara dafa fàttali sahaaba yi ar rajulu benn waay yu tiilu safar bu yàgg tukki as as abar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa matamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu li zalik Nabi saa salaam mu ne saxaaba yi benn waaye ngi nii bu tukki tukki bi yàgg tukki bi ni mu yàggee waa ji kawar gi dafa cuqaaral ndax gëj na sangu gëj na peñewu waa ji pënd na poussière tànk yi xar na ndax yàgg bi mu yàgg tukki di uti alal waa ji sonn na ma nga tàllal yàlla ay loxoom mu naan yaa rab ay yow yàlla yaa rab yaa rab yonent bi nee na waa ji wa matamuhu xaraam li muy lekk dafa araam wa mashrabuhu xaraam li muy naan dafa araam wa malbasuhu xaraam li mu sol dafa xaraam wa xuziya bil xaraami li ko wër dafa xaraam yonent bi nee na waa ju mel nii fa anna yustajaabu lahu naka la ko yàlla di nangule ku mel nii naka la ko yàlla di nangule li ngay lekk dafa xaraam li ngay naan dafa xaraam li nga sol dafa xaraam fi nga nekk dafa xaraam ku mel nii naka la ko yàlla di nangule yàlla du la nangul ixwaan yi kon du hasard yàlla naan ñu yaa ayyuhan naas kulu mimma fil ard lekk leen lépp lu nekk ci suuf waaye xalaalan lu dagan lu dagan xalaalan lu dagan tayiban te teey teey lan mooy lu teey mooy maa kaana taahiran gayru najas lépp loo xam ne dafa set du najas du sobe comme xaj comme mbaam xuux comme mbaam àll waaye wala mustaqzirun tuaafihi nufus da ngeen lekk lu teey te dagan loo xam ne sharia daf ko daganal léeg-léeg nga dégg ñu ne non yéen lu tax du ngeen lekk mbaam xuux ñu ne yàlla da ko aramal ñu ne non da ngeen am da ngeen am lu ngeen jënd yàpp bi rek yàpp bi dafa cher quoi dafa neex est-ce que yàpp mbaam xuux moo gën a neex ci yàpp àdduna bi mbaam xuux sax nit ku nit di ko lekk rabu àll yi gën a salte ci àddina bi mbaam xuux ci la bokk moo tax ku koy lekk xoolal rek nooy fooy mujje am na nit ñoo xam duñu lekk ginaar ndax liñ koy gis muy lekk salte waxuma la ak nag mbaam xuux est-ce que yéen mës ngeen gis mbaam xuux mbaam xuux xool ko rek day tey xel waxuma la ak nag ñu koy rey nga koy lekk na ngeen lekk lu dagan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku demee Makka lu xaraam mi ngi mel ne ku dem àll ba pare laaboo say saw ku dugg duus ba pare dem àll ba pare daal di dékk say saw nga laaboo ko est-ce que da nga set di nga set da nga gën a takk noonu la kuy lekk lu xaraam mel sunu borom subhanahu wa taala mu ne lekk leen lu teey lu dagante teey ngalawaay wala tattabiu bu leen topp xutuwaati seytaan yoonu seytaane yi gis ngeen wallahi mbokk yi ñun ñoo ëpp sans sahaaba yi ci dégg alxuraan wax bu muy wax ak ñun xool leen aaya bi yàlla ne lekk leen lu teey te dagan bu leen jaar yoonu seytaane pays mi yoonu lan la xoolal ñu ne dañ lay indil alal te doo liggéey te yow alal li ñu lay indil da ngay joxe 1000 francs daal di am 2 millions dafoo dara toog nga rek daal di xoos ay fas numéro 8 numéro 9 numéro 10 ñu ne la gañe nga nga am 3 millions yooyu yan yoon la loolu du yoon loolu du ay yoon est-ce que yoon bi nga jaar pour am alal yoon bu dagan la xoolal jigéen ji jaay boppam mu ngi am alal wala amul alal mais yoon wi ko gouvernement bi tëralal mooy defal ko carte ubbi util ko ubbal ko ay hôpitaux yu muy passé visite pour du am sida muy jaay boppam nga xam ne police bu ko jàppee guddi ne ko eh taxawal mu taxaw ñu ne alal sa këyit mu ne nii kërëj kërëj ubbi pochetam ñu ne nii gars yi toj ne ko te en règle yoon woowu ñu tëralal ko est-ce que du yoonu seytaan bu yàlla ne bu leen topp yoonu seytaan yi bu leen jàpp wax naa leen ko sànq bu leen jàpp ne benn mbedd la boo xam da ngay jaar yi dem ci seytaan déedéet yoonu seytaane dafa bëri tey ci adduna bi xoola politique politiciens yi yoonu seytaane lañ jaar xoolal ñoo xam ne dañuy am ay milliards te liggéeyuñ dara lañ def dara dara suñ liggéey xoolal ki nga xam ne tamit moom dafa toog rek na man diine diine laay liggéeyal diine toog rek du jàngale amul daara amul ay alluwe amul daa amul ay téere du wax du waaraate moom dafa toog rek gars yi di ñëw di indi xaalis bi muy dugal ci ay conteneur am nii rek loolu du yoonu seytaane xutwatu seytaan yoonu seytaan dafa bëri soo ko doon misaal tey ci dëkk bi dafa bëri ñu bare bari tey mu ci la ñuy dunde di am alal yoonu seytaan seytaane du ñëw ne la kaay def déedéet day ñëw tëralal la ay yoon yoo xamante ne dafa dafa yomb nga dem am ci alal te def xaraam wala tattabiu bu leen topp xutuwaati seytaan yoonu seytaane xutuwaat jamu la wala mufrad la jamu la kon ay yoon la wax bu leen topp yoonu seytaane ay yoon la ñu ubbil ñun jullit ñi pour lan parce que seytaane xam na bu ñu lekkee lu xaraam dañuy toog naan yaa rabbi yaa rabbi seytaane ne moo yow nga ndogoo pay mi di julli timis yow wala waa ji seytaan dafa mu du la ne bàyyi julli seytaan du la wax bàyyi julli du la wax bul julli parce que bu la waxee bul julli nga lànk mais day fexe ba nga jàppee lu xaraam nga sol mbub mu xaraam nga ñëw taxaw nag allahu akbar alhamdulilah mi la tey daay la waaye ki moo yabaate rek yow sa koll gi yëpp riba la nga alhamdulilah rabbil alamin seytaan ndeysaan day taxaw di ree di fëgg sa koll gi nag naan ko bim bim mu naan dug dug dul dul dul nga naan yow yow nga naan alhamdulilah rabbil alamin sant ñeel na yàlla looy sant yàlla sa biir bi yëpp yaa ngi ndogoo lu araam yaa ngi ndékkee lu araam yaa ngi año lu araam nga naan da ngay sant yàlla yow looy sant yàlla bu lox alhamdulilah yow mii mën nga war a sant parce que man maa la may ndeysaan yoon yi garaaw la mbokk yi lañu yaa seytaane di ubbil yoon yu bëri bëri bëri bëri yu bëri du benn de ay xoola football nga dégg benn waay bu nekk milliard ndax football benn waay bu nekk milliard ndax mbër xoola bëre tey nit ñaa ngi am ay milliard ci bëre xoola bëre nu mu xaraamee def yaramu neen futteeku génne say awra te xam ngeen ne awra góor fu mu tàmbalee fu mu yem xoola bokkaale bi ci nekk xoola bokkaale bi nekk ci bëri xoolal sànq waxtu gi ci nekk xoolal tuur deret gi ci nekk lépp mu araam mais tey xoolal Sénégal ñëpp ay noppi te xam nañ ne dafa araam mais ñëpp a noppi parce que ay millions ñoo ci nekk. léeg-léeg sax benn waaye gañe ñëw ne yaa ne sëriñam sëriñ sëriñ jàppal ji sëñ bi ne ko jërëjëf yàlla nga yàgg a daaneel. barakallahu fiika ayyadaka allahu wa nasaraka. yal na la yàlla taxawal yàlla ngay daan rek wala sëriñ bi ne ko subhanallah dafa araam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun génnal kër gi. ay sëriñ bi day ñëw jël millions yi dugal fii dégg naa fi benn woykat bu mag bu mag a mag a mag a mag jël ay baaf ay haut-parleur ay ay yóbbu ko ci benn jumaa ne man maay defar sonorisation jekke ji ñu ne est-ce que ay au lieu sëriñ bi ne ko lii dafa xaraam yow li ngay liggéey dafa xaraam caxat mais ñu ne eskay te ci lu araam la ko jëlee te jàngeen kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awla bi jàngeen yàlla mu ne inna allaha tayiban laa yaqbalu illa tayib mais Sénégal lu araam rek la ñu seytaane ubbil kolal pamekaas yi ah da ngay ñëw leb 5000 fay 10000 wala 15000 yooyu ay yoonu seytaane la bu yàlla ne wala tatabiu xudwati seytaan bu leen jàpp ne yoonu seytaane mooy déedéet xoolal ki luwe këram baar ki luwe këram baar ñu ciy jaay sàngara boo ko wax mu ne non man naanuma ki koy fay bu weer dee fan la jële xaalis bi ci sàngara si ñëw bu ko defee nag nga togg ceeb bu neex ceebu yàpp nga toog di lekk boo paree naan ndox ni alhamdulilah seytaane ree ndeysaan nga naar a nekk ci loolu ba dee wala tattabiu xutwati seytaan bu leen topp yoonu seytaane xoola ku ubbi salon coiffeur di me kii di meesaate ah ah di mees nit ñi rek di létt létt yu xaraam ñaata ñaata jullit yu jigéen ñoo ubbi ay salon di létt lu ci lu xaraam ñaata du jeex daanaka tey mënoo xëy ba génn gisoo ñuy liggéey ci lu araam te yow xam nga ne ñii ci lu araam lañ nekk mais kenn du nag ñun ñëpp dañu noppi rek jant bi waxoon na ñu ngi jëm jamono ku lekk lu araam lu araam dina la fekk sa biir kër nga lekk ci même boo ko liggéeyu moo tax tey pour jullit ñi ñaan yàlla may leen c'est catastrophe parce que li ñuy lekk lépp dafa xaraam li ñuy lekk dara teeyu ci dara daganul kan ci ñun fii tey mooy xëy suba amoo dépasse ngelaw li nu mu commencé daal di bërëng ñaari junni ci sa tànk nga xool ko mu xool la muy 10 000 nga naan hee inna allaha tayyibun hee fala yaqbalu da nga naan sëtëtëtët yàlla moo bëri kattan te ma julli ba pare laa la wax ñaan yàlla yàlla indi 10 000 sama tànk nga dem jëm jënd biyes doore doo laajte de ku ko moom ndeysaan doo laajte da nga naan yàlla moo ma indil xéewal dix mille te yàlla nangu na sama julli moo tax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla mu ne wala tattabi bu leen topp xutuwaati seytaan yoon yi leen seytaane tëralal yoon yu bari la mun nañ fay nekk li ko wax bu guddi gi jeex yoon yu bari yu tubaab yi indi ay système yu ñuy sàcce alal di ko jox nit ñi nit ñi di lekk wala Senelec ay sàcc lañ lu araam la ñuy lekk da ngay gis facture bi nga ñëw ñu la la timbre nangam TVA patatata dara amu ci nga dem SDE kazalika nga dem fu nekk nga dem ñu ne la nag fekk dara amu ci di sàcc alalu nit ñi dara te loolu alal bu araam la alal bu araam moo tax yàlla ni yàlla dafa sutura yàlla mu ne innahu moom seytaane aduwun mubin lakum innahu moom seytaane aduwun noon la mubinun bu biir bu ko feeñal lakum pour yéen moo tax mu tërale leen yoon yooyu xam na ne yàlla lii la bëgg mu ñëw tërale leen ay yoon pour ngeen mën cee jaar di am ay alal yoo xam dafa araam dootu leen nekk ay jullit te da ngeen di sax di julli di dem màkk di kii kii fekk du ngeen ay jullit parce que yéen a ngi lekk lu xaraam ñaari noon ñoo am noon boo xam ne daf lay won ne yow sa noon laa noon boo xam ne day toog di ree rek macha allah alhamdulillah fekk du la ko won ñaari noon yooyu kan nga ci war a kan nga war a gën a moytandiku ki la ki la ko won kii moom mun nga koo moytandiku mais kële mënoo rëcc ci moom mais kii moom won na la ah daa kii moom wax dëgg yàlla sama noon la xam naa ko kii comme kon dëgg-dëgg waratoo waratoo wax ak moom sax seytaane nag noonu boobu la ba pare mu nekk suñu copain te moom adduwun mu biin def noonu ba pare won ñu ko parce que lépp lu mu lay tëralal mooy pour nga dem safara la aatiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an fala tajid aksarahum shakirin yàlla waxoon na seytaane dinaa leen may ay doom dinaa leen may alal xoolal alal bi ñett ñi tey la ñooy am alal yoo xamante ne ci seytaane la jóge te yàlla nee nañu seytaane sunu noon la allahu akbar innahu lakum aduwun mubin seytaane noon la bu feeñal ak nooneelam bu ko biral pour yéen yàlla yemul ci loolu mu ne innama yaamurukum moom seytaane sax daf leen di digal bi suu i ci lu bon aduwun mubin adawatuhu bayyinatun noonam dafa feeñ wa kayfa wa huwa allazi axraja abuna adam wa xawa min aljanna wa aksaru sururi walmafasid fi dunya wa innama hiya bi wasawisihi wa ixwaihi mbokk yi keroog ba seytaane ngémboo pour ñu xam ne sunu noon la mu ne yàlla waa jii tax tey nga dàq ma biir aljanna kii moo njabootam du ñu am jàmm ay waxtu lañ ci teg mu dem génne ji al aadama biir aljanna génne ko ci biti mook awa ah ay waxtu lañ ci teg mu génne ji aadama biir aljanna ndax li mu waxoon moom mu ngi ci moom nee na du ñu jaamu yàlla ñun kon noon la bu biral ak nooneelam nee na li ëpp ci ay mbon mbon tey ci àddina bi ak ay yàqute ci àdduna bi seytaane moo koy def was-was seytaane moo am ay ay ay savant moo am ay expert am moo am ay xalaat katam ñooy toog di xalaat xoolal tey ñaata nit ñooy génne ay modd ñaw modèle yu araam ñaata organiser ay salon sax yuñ koy défilé ñaata tey ay nit ñooy xalaat ay moddu lét ñaata ay xalaatkat ñooy xalaat moddu sàngara bu ñuy naan ñaata ñaata nit ñooy toog di xalaat yenn moddu sport yu araam nit ñi di ko def kon bu yàlla ne seytaane seen noonu la daf leen di digal ngeen di def lu bon bul yaakaar ne seytaane day ñëw fekk la sa kër nga toog mu indi butal sàngara mu ne la Muhammad nga ne ko ah mu ne am naanal nga ne ko subhanallah man julli la nga ne ma naanaan nga man li duma ko naan waaye seytaane daf lay jaari beneen yoon da lay wiiri koñ xam nga loolu xale yi naan wiiri koñ changer la sax sàngara bi tur bi mu tuddee la mashrubatu ruuxiya mu ne la lii boo ko naanee sa ruu day dund ñu tuddee la ko viski wala ñu tuddee la ko flak wala ñu tuddee la ko Johnny Walker wala ñu tuddee la ko wala ñu tuddee la ko wala ñu tuddee la ko neneen ñu changer tur bi dafa la ko ci butéel bu rafet àmbale ko ba mu rafet ñëw indi teg daal lay tegal wala ñu dafa la ko ci ay sachet du sàngara rek ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen kon yàlla nee nañu seytaane daf leen di digal ngeen di def lu bon lu ñaaw bi suu yi ci lépp lu bon wal fahsha yi ak lu ñaaw assuu kullama yasiu nafs wa yusibuha bil xazni wal gammi wa yudxilu fiha sairu zunub mbokk yi lu ñaaw muy lépp loo xam ne ñaaw na ci bakkanu doomu aadama muy waral njàqare ak ay jafe-jafe mboolem bakkaar yi nag daf ci dugg moom lu bon loolu wal fahsha mooy lépp lu ñaaw ka xislatin qabiha ka zina xoola njaaloo mbokk yi tey ci Sénégal benn xale bu góor bu amul jabar wax ak benn xale bu jigéen bu xees pecc njool ci kaw kawar gi gudd bët yi dijj xale bi ne ko bëgg naa la di ko seet si guddeeg bëccëg biir néegam ñuy tëju ba ay minuit ay deux heures est-ce que xale bu jigéen bi day toog fële mu toog fii ñoom ñaari ñuy wax waaw na nga def maa ngi fi rek question la point d'interrogation ah kuy tontu tontu bi mooy déedéet xale bu góor bi sax bu ko seetee wala moom ñoom ñaar ñëpp ku ci mënta ñëw ñaar ñëpp a yem loolu ci ñun paa bi ci digg kër gi sax bu xale bu jigéen bi ñëwee alors père ça va mu ne ça va mu ne ana moi mu ne moi mu ci biir la nekk moi mu ne ah mu ne wuyul ayda mu daal di jàll ñu romb paa bi dugg une jour dugg ci biir daal di delloo bunt bi paa bi xam na lu xew ci biir de moom sax bu soxlaa néeg bi bu ñëwee danaan loolu mooy lan mooy bàyyi li ngeen def maa ngi ñëw su ngeen d'accordul wax leen ma d'accordu leen dégg nga kii kii nee na am na paa bu nekk këram bu xale bu jigéen ñëwee seet si doomam danaan ko yaay sama goro ba pare bàyyi leen ñu dugg ci biir subhanallah kon li yàlla ne seytaan da leen di taaral ay mbir yéen jullit ñi ngeen toog di ci gis bët te du ngeen ci wax ak bëri ci ñun kenn du wax naka noonu xale bu jigéen boobu xale bu góor bi seet si ko wala xale bu góor boobu seet si xale bu jigéen wala xale bu jigéen boobu ku góor seet si ko léegi kër yi moom njaaloo kese la guddeeg bëccëg kenn du wax xoola njaaloo ni ñu ko taarale Sénégal da ngay dégg sax ñu ne wër sëru Lagos la police boobu bu fekk ko ci ndax dafa yomb kenn mëntu ci dara ah dëkk bi day moom léegi boo bëggee wax yaa ciy des xale yi moom seen jamono dañ koy dund léeg-léeg sax gis benn xale bu jigéen bu bëgg a baax di xaw a bañ bañ lu yaayam ne ko yow mani feccil sa kanam gi ndax góor ñi ñeme la ngay dangiral nii rek dañ fi yàgg de doo gis mu kër gi kenn daf ñëw di la seet kenn ñemewu la su ko defee xale bu jigéen boobu commencé wàcc commencé jege xale yu góor yi musiba am sunu lii mooy sunu mbir seytaan bu ñu yàlla di wax nañ ko moytandiku su war sunu borom subhanahu wa taala moo wax dëgg ndax moo bind seytaane moo ko xam yàlla mu ne daf leen di digal lu bon ak lu ñaaw ka zina lu mel ne njaaloo walliwaat ak góor jigéen mbokk yi ndax am na lu gën a ñaaw góor jigéen ci kaw suuf góor jigéen da ngeen yaakaar dafa jékki-jékki rek daal di am ni mais seytaane moo ñëw taaralal ko góor ñi ñu koy defante seen biir xoolal góor dem jàpp góor moroomam ñaari góor yi simmeeku nga xam ne seen yaram ci kaw ba ci suuf lépp a nuroo amul lu lu nekk ci yow te nekkul ci sa morom bi même góor googu bu nekkee paa beneen beneen beneen xale bu góor bi nekk liir ñoom ñaar ñoo nuroo yaram boo xoolee paa bi li nekk ci yaramam yëpp moo nekk ci liir bu góor bi tëdd yaramam yëpp léegi ñaar ñooñu yow fan ngay bànneexu ci yaram bi fan fan rawatina nag la hawla wala quwwata illa billah wallahi sunu borom moo wax dëgg wallahi ngóor jigéen yëngal na arsh ibnu abbas nee na góor bu juutalee góor arsu rahman day yëngu fi yàlla nekk day yëngatu arsh la ilaha illa allah te xoolal ni mu bëree ci sénégal tey yenn saa yi nga dégg ñu ne xalif général bi sax góor jigéen la yàllaa xam yenn saa yi nga dégg ñu ne la ministre diw góor jigéen la député diw góor jigéen la patron diw góor jigéen la enseignant diw góor jigéen la professeur diw góor jigéen la doomu diw góor jigéen la ba kañ loolu lan moo ko indi mooy seytaane moo koy jaaralal nit ñi ñu dem léegi ba góor jigéen ñi ñeme am baat ci àddina bi di wax am na benn góor jigéen bu ñu génnee Sénégal mu dem États-Unis lan la wax vraiment maa ngi doog a xam njëriñu góor jigéen maa ngi doog a libre maa ngi doog a libre maa ngi doog a dund sa hawla wala quwwata illa billah kon dafa ma yow suñu yàlla di wax ñu moytu seytaane seytaane du ñëw nañu bul julli seytaane du la ko wax bul julli du la ko wax mukk fekkee loolu ngay xaar seytaane ñëw naa la eh laa tu salli bul julli du la ko wax eh bul woor eh bul ajimase seytaane day ñëw fexe nga nekk ci lu bon ba pare di def loolu parce que boo nekkee ci lu bon yàlla dootul nangu lii dootu ko nangu sunu borom mu ne yamul rek ci di leen digal yu ñaaw yu bon yooyu njaaloo góor jigéen waaye wal buxlu ak nay wa saairil maasi ak mboolem bakkaar yi zaatu qubhun shadid bakkaar yi nga xam ne yooyu la doomu aadama di demee ba ci sommet bi bakkaar yi nga xam ne daf la yóbbu ba yaa ngi ci combox bi nag yow fi mu nekk nii kenn mënatul def bakkaar ba raw la wala jigéen juy jaay boppam nga wax mu naan la dama amay doom aw ma ku leen dundal wala man dong la sunu kër boo nekkee yow dong seen kër da ngay jaay sa bopp dama nga mbindaanu ji weer dee ñu fay la ah su fekkoon na jigéen ñi jaay seen bopp yëpp dañuy dem di liggéey mais duñ ko def parce que yoon wee moo gën a gaaw am xaalis da ngay gis benn guddi mu yor cinquante mille cent mille cent benn waay benn super taxi nee na ma xale bu jigéen bi ma dëkkal muy jaay boppam yaay ji lay àndal maanaam système la ñuy def day nëbbatu buy xë buy dem di jaay boppam par ci ngoon gi day day ànd ak yaay yi ci taxi bu taxi bi tourné ñaari mbedd vir vir mu ne taxi arrête mu wàcc ne ko demal bul guddee daal di dox tànkam ñibbi si maanaam léegi xam nga ku gis muy ànd ak yaayam danga naan dañuy doxi soxla fekk bu taxi bi defee benn koñ ñaari koñ yaay ji wàcc bàyyi xale bu jigéen bi dem bu xale bi demee ba war a ñëwaat fajar dafa jëndal yaay ji portable kër sonné portable du fay kër sonné yaay ji ne ko alors mu ne ko egsi naa ubbil buntu kër gi day ubbi rek yaay ji day wàcc ubbi buntu kër gi ndànk xale bu jigéen bi day ñëw rek dugg yéeg kenn du yëg na ñëw na benn chauffeur taxi mu ne ma maa ngi moom ñoo dëkk gis ngeen parce que pourquoi xale bi saa yu ñëwee dina indi 3000 dina indi 5000 dina jënd ceeb dana jënd diwlin dana jënd mburu dana jënd dana jënd dana jënd wala fi nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kers ko ëmb sa sànqal ëmb sa kers su fekkee da nga am doom yuy liggéey ci lu araam mu lay dundal doo musa wax loolu moo loolu moo tax ngeen gis paa yi ak maire yëpp démissionné ci kër yi kenn du wax parce que xale yu jigéen yi xale yu góor yi ñoo yor kër yi léegi paa yi retraité nañ mënatuñoo jënd saako ceeb mënatuñoo fay courant mënatuñoo fay ndox booy bee fi nekk góor jigéen la mooy indi paa bi part lay def ñu wax mu ne ah man de gisuma ci gisuma ko gisuma gisuma ci moom loolu yéen yéen a koy wax gisuma ko walla lay wax gisuma ko xale bu jigéen bi ñu ne mu ne gisuma ko kii moo gën a baax ci sama doom yi ndax dafa am yërmande ceeb bi du manqué diwlin du manqué nangam du manqué moo may defal lépp moo gën ci sama doom yi ah alaysa kazalik am na benn woykat bu ñu fi jàppoon ci yu bon ci soirée boobu ñu doon wax ne dañu doon génne seen awra yi ku siiw la bi ñu ko jàppee li ngeen njëkk a dégg mooy papaam di wax ci rajo bi naan moo gën ci sama doom yi waaw naa ko taxaw ba mu génn ngeen dégg ci rajo mu koy wax ma ni Sénégal dina néew léegi ay paa yuy wax ak ay maire yuy wax dañuy néew de dañuy néew dañuy néew dañuy néew de booy wa loolu ngeen def ko seen bopp yi waaye loolu yëpp yoonu seytaane la moo tax yàlla mu ne seytaane moo leen di digal di leen yoonalal di leen taaralal lu bon ak lu ñaaw waaye yemul foofu moom seytaan daf leen di yóbbu sax wa an taqulu ngeen di wax alallahi ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamul waaw ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul ay diine zaahir la ak baatin waaw yéen zaahir bi ngeen xam nit mën na nekk jullit te nekkul ci sharia nit bu ko neexee mu julli bu la neexee doo julli sa xol rek na set waaw julli yóbbul kenn aljanna gis nga an taqulu ala allahi ma la taalamun seytaane du leen bàyyi daf leen di taaralal lu nekk ngeen indi seeni xalaat seeni pexe seeni nangam nangam ci diine yàlla waaw takk juróomi jabar ñu ne la lu tax nga ni waaw ñun ñun dañoo am jagle dañ ñu koo jagleel am na sëriñ boo xam day wax taalibe yi naan leen sàngara balaa muy egg seen put ma soppi ko meew meew laa koy soppi waaw waaw am na koo xam ne weeru koor woorul naan ba màndi ñëw maasa zeng ziar si ay taalibeem bi mu ñëwee bëkk néeg bi ñëpp toog bëkk néeg bi naan bu leen xool lim def xool leen doomu kan la bu leen xool lim def xool leen doomu kan la wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun loolu mooy Sénégal wa an taqulu dañuy wax ala allahi ci yàlla ma la taalamuuna lu ñu xamul teguñu ko fenn ci sharia boo leen ne loolu lu ci yàlla wax ñu ne la non ñun tënkuwuñ ci sharia ñun tënkuwuñ ci diine ñun ci xaqiqa lañ tënku xaqiqa wa an taqulu ngeen di wax ala allahi ci yàlla ma la taalamuuna lu ngeen xamul allahu akbar waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal nañu yàlla jubal billahi wallahi taalahi ci aaya bii nii wa an taqulu ala allahi ma la taalamun buñ ci nekkoon di ci xuus fii ci suñu réew mii aaya bii rek mën nañ cee bind kaamil wa an taqulu ala allahi ma la taalamun seytaan def leen di yóbbu ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul amu leen ci benn xam-xam amu leen ci benn dalil amu leen ci benn tegtal ku nekk di wax xoolal tey kër yi ku nekk day wax billaahi wallahi taala nañ nañ bu ñu sañoon ñu indi ñu indi télé ñu ne tey yéen yéen a aye ñooñu bu ñu waxee ba pare ñu indi ñeneen ñi dimanche inna lillahi da nga naan ah ñu indi ñeneen ñi leen di ba samedi bi di jotaat kon da ngay xam ne li yàlla wax ne wa an taqulu ala allahi ma la taalamuuna dëgg la waaw léegi benn waaye mu ne ñun fii ñi fii ñëw ñëpp mbiru àdduna lañ ñuy wax kenn du ñu wax mbirum alaxira ndax alaxira rek le nañ ko ba pare ak diw mu ngi foofu rek le na ko te ñëw rek dugg aljanna yenn saa ne ñu ne caabi aljanna diw moo ko yore waaw caabi aljanna Mohamed Diallo moo ko yore ndeysaan gars yi ne nañ séeréer bi dafa dugg ci lislaam tuub sëriñ bi mu ne ko dinaa la yóbbu aljanna ngóor mu ne ah mu ne dinaa la yóbbu aljanna mu ne ko jërëjëf sëriñ loolu moo taxoon ma ñëw fi mu bëgg a jóg mu daal toogaat mu ne sëriñ waaw caabi jooju ngay wax caabi aljanna mu ne waaw mu ne boo ma njëkkee dee noo ma koy joxe bu ma la njëkkee dee fan laa lay fekk wax ma ko maanaam boo dee fan laa lay fekk nga jox ma ko bu ma la njëkkee dee fan nga may fekk point d'interrogation sëriñ bi ne ko nañ jaamu ji yàlla mu ne ko looloo wóor loolu laa la bëggoon wax nañ jaamu yàlla caabu aljanna mooy nañ jaamu ji yàlla bu la benn waaye ne caabi aljanna sa caabi aljanna maa ko yor léegi moom mu njëkk laa dee foo koy fekk pour mu jox la ko ah foo koy fekk moom moo la njëkk a dee léegi nag yow yaa ko njëkk a dee gis ngeen kon nañ jaamu yàlla caabi aljana mooy jaamul yàlla jaamul yàlla jaamul yàlla ku la bëgg a jox aljanna rek mooy ku lay wax demal nga jaamu yàlla intaha sunu borom nee na wa isa qiila lahum seytaane da leen di yóbbu ba wa isa qiila lahum bu ñu leen waxee ittabiu topp leen maa la nga xam ne anzala allahu yàlla wàcce na ko nit ñi dañuy topp seytaane topp pexe seytaane topp ay mbiram ba boo leen ne topp leen li yàlla bëgg qaalu ñu ne bal li wóor tey mbir nattabiu dañuy topp maa alfaynaa la nga xam ne fekk nañ alayhi ci moom abaawu naa sunuy baay dafa mel ni alxuraan bi mbokk yi yéen ñëpp su ngeen waxalee yàlla dëgg dafa mel ni alxuraan bi ci ñun ñii la wàcc wàccul ci waa màkk dafa mel ni ñun ñi ñoo ko moom alaysa kazalik waxuma la sax waxuma la sax waxuma la sax waa géejawaay waaye ñu nekk fii ci jàkk ji toog rek dafa mel ni alxuraan bi ci ñun ñii ñun ñii ci biir jàkk ji ci ñun ñii la wàcc alaysa kazalik wala aaya yi li muy wax yëpp mu ngi ci ñun fii ku nekk gis nga ko teg nga ci bët ku nekk rek li aaya yi li ñuy wax nii ñaata nit tey nga naan topp leen li yàlla bëgg ñu naan la léegi nag sama papa ak sama yaay li ñu nekkoon nag ñoom sëñ diw nag ñoom diw ak diw liñ fi indi nag ah yéen ngeen juddu démb nekk fii naan nañ topp yàlla ak yonent ah yéen kañe ngeen fi kañe ngeen juddu kañe ngeen màgg kañe ngeen jàng ndeysaan allahu akbar loolu ngay dégg ñu lay wax kaña kaña ñetti kaña yooyu ñoo ñu tardeel yàlla moo ko wax wa ida qiila lahum suñ leen waxee ittabi'u topp leen ma anzala allahu li yàlla wàcc e waaye topp leen alquran ak sunna nga di qaalu ñu ne bal li wóor tey mbir ñun dey nattabi'u dañuy topp maa la nga xam ne alfayna ay wajatna fekk nañ ale ci moom aba ana sunuy baay ñun sunuy baay la ñu nekkoon ci la ñuy nekk waaw ngonee ko baam moon wonnoo ne doyoo won ko baam mum woni ñoom paaba loolu la ñuy wax waaw ndeysaan nekk leen lu seen baay nekkoon alxuraan ne waaw dégg leen alxuraan de yàlla moo mën a wax mu ne awalaw kaana abaahum la yaqiluna shay'an yow da ngay topp sa baay même sa baay bu amul woon xel nga topp ko nga topp ko ci ñàkk xel gi sa papa ku réer la woon nga topp ko ci ku réer gi kan ci ñun fii moo fekkoon papaam di tëdd ci pajaas mu continue tëdd ci pajaas tey ci lan ngeen di tëdd ci lan ngeen di tëdd du ngeen tont da ngeen fekkoon paay dawal ay mbaam yéen lu ngeen di dawal tey da ngeen fekkoon paay fanaan ci néegu ñax tey ci lan ngeen di fanaan da ngeen fekkoon paay amuñu woon sax téléphone yéen tey ay portable da ngeen fekkoon paay amuñu télé yéen ay télé gis ngeen la ngeen fekkoon paay defuñu ko yëpp sànni ngeen ko fële léegi diine bi nag pas-pas bi ñu ne leen kaay leen ci li yàlla wax ngeen ne déedéet xasbuna ma wajadna alayhi abaana ñun dey man de sama baay la mu nekkoon ca laa nekk te yow mii sa baay la mu doon dunde dunde woo ko paay cere lañ doon lekk yéen lu ngeen di lekk tey paay sombi lañ doon reere yéen lu ngeen di ndekkee bu puuri bu boulangerie bi gerewee sax yéen ñëpp ngeen feebar benn waaye nee na ma xam nga lu tax sénégalais yi bëgg mburu ma ne waaw mu ne moom lañ leen ferale bu boulangerie yi gerewee rek ñoom ñëppay feebar mburu lañ leen ferale donc nga wax nga dëgg de kuy fer dañuy gàddu ñaari kilo mburu yóbbu kër sëriñ bi allahu akbar ñaata ci ñun lañ naan topp leen yàlla li mu wax ak yonent ñu ne déedéet waaw wallahi demal ci xew yi rek demal ci dëj yi demal demal barki dem benn dëj laa xuloo waaw mu ne la suñuy pap waaw waaw takk téere yi gàllaa ji nga ñëw ne ko lii mu ne la gis nga sëñ bi lii suñuy maam gis nga yàlla moo ñu wax dëgg lii yàlla moo koy wax alaa yaalamu man xalaqa yàlla miy wax nag ñun ñii lay wax parce que yàlla moo ñu xam nga de gaa yi ñu ne ñun suñuy baay la ñuy topp tey lii dafa bokk ci li tardeel diine bi suñuy baay suñuy ndey suñuy baay suñuy maam te yàlla waxul fenn nañ ci alxuraan nañ topp suñuy maam fan la ban aaya la fan la yàlla wax ci alxuraan nañ topp suñuy baay fan fan amul yàlla kan la wax nañ topp atiu llah wa atiu rasul ceerno yunus nee na min yiilima qur'an temedere simore e sappo e nayi min jonki hen yiide yo ceerno ma ɓurana yumma e bamma min jiilima qur'an min donki ɗum hen yiide yo ceerno ma ɓurana yumma e bamma ngala sa nday gënal sa papa sa papa ak sa ay dañ la gënal yonent bi fan lañ ko jàngee fan sa ndey ak sa baay sa sëriñ na la ko gënal fan ngeen ko jàngee wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iya wa bil walidayni ihsan ginnaaw yàlla rek sa ndey ak sa baay lañ ci teg parce que ñaar ñooy ñooy sabab nga ñëw ci àdduna munoo leen fay kon bala ñu naan toppal keneen da ngay gis koo xam ne du tabax bàmmeelu baayam den du tabax bàmmeelu keneen am na koo xam ne du raxas oto papaam day dem di raxas fas fasu papaam mbaamu papaam sax du ko du ko raxas dem di raxas ay oto di naan di naan potin mi nag pare nañu raxas ñëw leen ngeen barkeelu ci potin mi gars yi di ko naan inna lillahi wa inna naan potin potin mi ëpp naa tuur de yee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun benn waaye nee na ma barki démb ci boulangerie benn boulangerie la de boulanger billahi wallahi taalahi benn boulanger nee na ma benn sëriñ moo leen ziar ci boulangerie bi bi mu ñëwee julli jot mu ne kenn benn benn waaye eh eh al ma sa carax yi yow kooku abal ko carax yi mu daal di jullee carax yi pare rek daal di leen ñaanal dem rek borom boulangerie bi ñëw ne ana diw ñu ne ma ana carax yi mu ne maa ngi mu ne jaay ma ko jaay ma ko mu ne lan la mu ne ma ne jaay ma ko sëriñ bi sol na ko waxal kooku ne ko ah man de 1000 francs laa ko jot ma ne indi ab 2000 la ngi nii yow xamoo sax lu tax ñu laaj la dàll yi yow xamoo lu tax ñu laaj la dàll yi yow indi dàll yi mooy lan alma dàll yi ma jàpp rek waa ji di say ci dàll yi waa ji ne man damaa juum bu ma xamoon dama naa ko dàll yi 10 000 laa ko jëndee mais xaw ma woon mais 2000 la ma jox xoolal loolu yooyu mooy lan am na benn waay boo xam ne oto la yéegoon rek oto bi mu wàcc rek borom oto bi daal di jël oto bi daal di koy baas daal ne oto bi kenn dootu ci yéeg ndax diw yéeg na ci ba yow mal xiyaamati oto bi nekk foofu di yàqu jullit ñi nekk fii di dox amuñu lu leen yóbbu ci man buñ ma ko mayoon mbokk yi yàlla mu ne awalaw kaana donte dafa nekk abaawum seen baay laa yaaqiluna shay'an xeluwuñu wala yëhtaduuna jubuñu sa baay bu xeluwul amul xel moom yëfu dof lay def day dem di takk ay der di takk ay béjjën di takk ay lam di di di julli ci ay deru xaj wala muy dem di sangu ci ay mbedd 4 heures du matin sa papa di def loolu amul xel wala yëhtaduuna jubul yoon xamul l'islam yow nga dem di ko topp daal ne yàlla moo ñu posé question tontu leen lii yàlla moo ko wax man waxuma ko lii texte la sans commentaire awalaw kaana abaahum la yaqiluuna shay'an même bu fekkee seeni baay amuñu xel wala yahtaduuna jubuñu yéen ngeen leen di topp ci lool inna wajanna abaana ala umma wa inna ala asaarihim mbokk yi li ma doon dar su tey ngi jégg li njuumte yi na yàlla def ci ñu dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh